أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi jël tey saar bu bees bu tudd suura al araaf waxoon nañ ne saar bi màkka la wàcc ñoo ngi jël juróomi aaya yi njëkk yi ci bopp saar bi aaya numéro 1 2 3 4 5 juróomi aaya yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal ñeenti mbir yooyu ba ca jiitu mooy alquranul karim huwa masdaru nadarati rusul alquran mooy source bi nga xam ne yonent yi alayhimu salaam ñooñu yàlla yónni pour ñuy waare ñooñu yàlla yónni pour ñuy woote yàlla dafa def fi ñuy tënk li ñu war a jël di ko wax ak nit ñi yàlla dafa def mu nekk alquran mooy masdar nizaratu rusul waaye wa bishaaratu bima hawaahu min alwaadi walwaid wa zikra walbushra alquran boobu sunu borom subhanahu wa taala def muy source mu nekk ab teen mu nekk rootukaay yonent yi moo tax alquran dong moo mun defar nit ñi ndax yonent yi alayhimu salaam bi leen yàlla yónnee jox leen ay téere sunu borom subhanahu wa taala dafa wax ne téere yooyu ñuy jubal doomu aadama yi kon alquran mi di sunu téere ñun jullit ñi mooy téere bi nga xam ne mooy balluwaay bi nga xam ne suñu bëggee baax ci la ñuy rooti mooy teen bi nga xam ne suñu bëggee naan ci mar wi nu mar mooy maru réer ak maru bokkaale maru bida suñu bëggee mu deñ ci téere bi dong dong dong dong la ñuy rooti moo nuy fajal sunu xiif ak sunu mar mais nekkul téere waaraate kese mais téere mbégte la sunu borom ci lay bégal gaa yi nga xam ne ñoo ko gëm ñooñu nga xam ne ay jullit lañ ñooñu nga xam ne ñoo ko nangul ne ëllëg danañ dund fii ci àdduna teraanga buñ deewee dajeeg yàlla yàlla dugal leen aljanna moom alxo téere boobu dafa ëmb ay mbir dafa ëmb ay ay dikk yéen ñi gëm yàlla su ngeen saxee ci ngëm yàlla gi ba faatu dajeeg yàlla loolu ay dig la dig dig mooy nit suñ ko nee soo defee nangam am dara loolu mooy dig mooy waad waid nag mooy tëkku mooy cëy soo bàyyiwul dara wala cëy soo defee dara suñ la jàppee loolu mooy tëkku alxuraan nag dafa ëmb ñaar yëpp moo tax mu nekk bashiran wa naziran day bégale waaye di tëkkuwaate nag ñaar yooyu la alxuraan ëmb waaye wa zikra waaye day fàttali moo tax gis nga yàlla buy wax fa zakkir ci alquran fa zakkir bil qurani man yaxaafu waidi na ngeen fàttali ci alquran bi waa ji nga xam ne ragal na samay tëkku tey nag bi ñu bëggee doomu aadama yi jub te bëgguñu leen a jaarale ci alquran moo tax njub munta am ndax alquran rek mooy jubalaati loolu la yàlla joxoon sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mu jubal ci jaam yi tey bu ñu yaakaaree ne am na keneen ku indi loo xam ne moo gën a baax moo gën a gaaw moo gën a moo gën a moo gën a dañuy nax suñu bopp alxuraan dafa ëmb ay dige waaye ëmb ay tëkku waaye nekk fàttali waaye nekk loo xam ne dafay bégalaate wa bushra li qawmin yuqinuun li qawmin yaalamuun li qawmin yuminuun day bégal gaa yi gëm yàlla gaa yi am kóolute ci yàlla alxuraan dafa ñëw pour bégal leen ne bu ñu faatoo dajeek yàlla yàlla da leen di dugal ci ay yërmandeem ñaareel li ñuy jàng tey mooy wujubu ittibaaul wax yi dafa war ci ñun ñu topp wax yu wax yi mooy alquran loolu dafa war wujub chaque jour wax nañ ne dafa am ay mbir yoo xam ne ci sharia buñ ne wujub rek nekkatul mustahab loolu la borom xam-xam yi naan fard mooy mbir mu war alquran nag topp ko war lu war la ndax alquran moo digle yàllaa digle ne nañ topp alquran léegi nag mbokk yi naka la ay jullit di nekkee jullit te duñ topp alxuraan wala sax ñu gëm ne alxuraan jarta jàng te ñun ñu ne ay jullit lañ te yàlla ne ñun topp alxuraan ci ñun farata la lu ñu yoonal la léegi nag nun nu bëgg nekk ay jullit waaye duñ déglu alxuraan waaw ñi naan alxuraan rakkal la ñi naan jarta jàng ñenn ñi sax naan boo fekkee fu ñu koy jàng wala fu ñu koy jàngale waral fas woo xamante ne fas wi dal dañ koo solal ay dàll weñ mu daw ak moom ba dàll yi jeex takk moo gën nga toog di déglu alxuraan fu ñu koy jàngee loolu musiba weesuwul loolu kon topp alquran wujub la dafa war waaye wa xurmatu ittibaai ma yaddu ilayhi ashaabul ahwa wal mubtada dafa aram ci ñun ñu topp gaa ñi nga xam ne ci tuus bi lañ nekk ñi nga xam ne seeni bànneexi bakkan lañ topp ñi nga xam ne ay bidaa lañ topp loolu dafa araam ci ñun ñu topp leen kenn ci ñun ku gëm yàlla koo xam ne yonent bi mooy royukaayam amoo droit di topp waa joo xam ne lam lay wax du la ne yàlla nee na du la ne yonent nee na waaw te tey Sénégal loolu moo fi am ñii xëcc doomu aadama yëpp duñ leen wax yàlla duñ leen wax yeneen ay bànneexi bakkan rek foofu am na yàpp foofu am na ceeb am nay kanet da ngay lekk ba suur loolu kese la ñuy waxaate xoolal nit ñi nu ñu bëri xoolal mbooloo mi xoolal toilette yi ah am nay am nay am nay am nay am nay teenu teenu boisson am nay robinet caakiri loolu rek yooyu kese la ñuy wax nit ñi loolu est-ce que diine la déedéet ay jullit fu ñu leen dajale dañ leen war a wax xoolal yonent bi lu mu wax mu ne ay nit fu ñu dajee ba jóge fi waxuñu fa yàlla waxuñu fa yonent foofu meddum mbaam la meddum xam ngeen mbaam kan fii ci ñun moo xam mbaam nekk ci loxo Amadou moom xam na ko Hamid xam ngeen mbaam wala andi mbaam mbaam ba ina ñaame ñaame taake dañ koy lekk lu tax duñ ko lekk laaram léegi mu middaat nag ñaata kon laaram ñaata yoon yonent bi nee na jullit ñi fu ñu daje ba dem waxuñu fa yàlla waxuñu fa yonent noonu la mel araamoon na de fekk deewul léegi mu middaat mu nekk deuxième araam parce que lu médd dañ koo tere jullit bu doon benn nag la wala benn gëléem wala benn xar mu médd daga na lekk wala daganut a lekk daganul dafa araam léegi nag mbaam araam naa lekk ba pare mu médd allahu akbar xoolal kon importance su di fàttali nit ñi fu ñu toog nga naan leen yàlla nga leen di wax yonent importance bi mu am dafa araam ci ñun mbokk yi ñu topp ñi nga xam ne seen woote yépp ay bànneex la waaw ëllëg yowmal xiyaam bu yonent bi ne tëll aboubacar ne tëll omar ne tëll ousmane ne tëll ali ne tëll ma ne tëll waaw yow foo ko teg yow nga ne tëll foo ko teg wala bu dee aboubacar ne tëll yonent bee ko wax bu dee omar ne tëll yonent bee ko wax su dee ousmane yonent bee ko wax bu dee ali yow yonent yow nag léegi ku ko wax yow loolu mooy suñu problème waaw ëllëg yowmal xiyaam bu yonent bi jiitoo Aboubacar topp ci Omar Ousmane Ali man ngeen di gis maa ciy tegu ah yow ku wax loolu ku wax loolu ko defee gaa yi yuuxu wala ñu ne ko waa yow li nga wax luy dalil bi gaa yi dañuy yuuxu mbëkk miir yi mbëkk poto yi waa ji li mu wax jar sa yuuxu yëkkee dañ ko waroon laaj yow lii nga wax nii foo ko teg loolu mooy sunu problème topp ñi nga xam ne ay bànneex kese kese kese kese da ngay gis julli jot kenn toog di jàngale julli jot wala di waaraata julli jot mu ne toog leen bu kenn jóg yéen a ngi ci julli yéen a ngi julli toog leen maa ko garanti waaw maa ko assuré man waaw fii ku fi toog wala waa ji génn rek xool nit ñi ñu ne ku ko gis sa yaram araamal na safara mu toog gaay naan ko nii di ko xool te yonent bi am na ñu ko gisoon dem safara ndeysaan yonent bi am na ñu ko gisoon de dem safara yow nag nga génn gaa yi xool la rek dem àjjana kon yow yaa gën a foor yonent bi parce que Sénégal kenn du leen laaj dalil nit ñi dañ leen a terroriser ba ñemewoo ñoo fekk sëriñ bi ñu wër ko nga ne ko li nga wax nii foo ko teg kenn ñemewu ko fii ci ñun sëriñ bi di wax ba caag ngay kër sa lox benn waaye daf may nettali mu ne Mauritanie ci Mauritanie imam bi day xutba rek càgg rek mu wax lu mu warut a wax benn waaye ci biir juma asalaamualeykum imam imam ne teg mu ne ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daa di indi hadis bi dóor ne ko li nga wax ak hadis bi dafa wuute te yonent bi moo wax dëgg imam bi daan ne waa ji wax na dëgg de ñu continuer xutba bi loolu kan moo ko ñemee def fii Sénégal ab sëriñ dañ naan waaw waay kii kii kii kii kii moo ñàkk te waay kii kii leen ko waay gaa yi yëkkati la buñ la buñ la yéexee jaaral ci fenêtre jumaa ji ñu yóbbu la àllaaxira loolu mooy suñu problème topp bànneex toppi bànneex kese kese kese kese te li ñuy wax ci Sénégal diine diine diine yépp ay fola lépp fola fo kese lépp bànneex kese amul yàlla amul yonent amul julli amul jàngale amul dara waaw na xumbuta dagan rek xumbuta dagan loxo yi ci kaw bàkkaar ci suuf gaa yi fettasu waaw kese moo am Sénégal yal nañu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko kon mbokk jullit yi boo mooy ñaareel ñetteel mooy al ictibaar bima xalla bil umami zalima min xiraab wa dimaar al ictibaar lan mooy ictibaar mooy dañoo war a daytalu dañoo war a jàng dañoo war a gis dañoo war a am ay dégg ci lan ca la daloon xeet yu njëkk ya qawmu luut lan moo leen dal qawmu aad samuud qawmu nuux qawmu tubba ibrahim ñooñu ñëpp la leen daloon ci ay musiba ñun dañ cee war a jàng yàlla nee na xeet sàngam bañ defee nangam dama leen a mbugal ñun buñ déggee loolu luñ ci war a jële moytu nitu luur ya bañ nekk ay ju góor jigéen yàlla da leen a mbugal nitu soayibu yi yàlla da leen a mbugal ñii ba ñu wàññee ay balance ay natt yàlla da leen a mbugal ñii ba ñu bokkaalee yàlla da leen a mbugal ñii ba ñu waaw léegi ñun ñuy jàng loolu guddeeg bëccëg lu nu war mooy ñu jàng ci ñu jàng ci ñu daytalu ci ñu waaru ci loolu la fàttali jëriñ yàlla ba muy wax alquran nañu fàttali dafa ne su fekkente ne fàttali bi dinañu jëriñ waaye bépp mawisa bu yàlla wax ci quran dañuy dégg mu ne wa mawisatan lil taqin ak waar la pour ñu ragal yàlla ñi ragal yàlla bu ñu déggee ne kat ñii dafa am lu ñu defoon yàlla mbugal leen ñoom bu ñu ko déggee lu ñuy def ñoom duñ jaar foofu kon ñetteel bi mooy al itibaar dañoo war a daytalu dañoo war a yeewoo dañoo war a xame dañoo war a déggee bi ma xàll bil umami la nga xam ne moo daloon xeet ya nga xam ne azzalima dañoo tooñoon yàlla wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa xaasabnaha yàlla loolu la wax fa xaasabnaha xisaaban nukra fa zaaqat wa baala amriha wa kaana aqibatu amriha xusra bëri na dëkk yoo xam ne dañ maa moyoon man yàlla ma jàpp leen fudd seeni nuunara bañ ne teg te mbir mi mujjul fenn nag fen fen fen alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama dhatil imad allati lam yuxlaq misluha wa samud allazina jaabu saxra wa firawna allazina taxaw fi lbilad fa aksaru fiha alfasad ba leen yàlla jàppe lu mu leen def fa sabba alayhim rabbuka te xoolal yàlla bi mu waxee loolu ba pare bu fekkoon ne sa foofu la yem muy jàmm mu ne inna rabbaka la bil mirsad yoon ba ma taxawoon di xaar gaa yi yoon boobu laa taxaw ba tey te yoon boobu nag foofu rek la ñuy jaar te yàlla nga fa taxaw nag di ñu xaar kon lu war mooy bu ñu fay jaar ñu indaale lu yàlla bëgg ñu bàyyi lu mu tere fii yoon bi ngay jaar te gendarme yaa ngi fi police yaa ngi fi douanier yaa ngi fi te yow fii rek ngay jaar kon lu la war yow fay jaar nga indi lu ñu wax ci moom moom lañ fiy dugal rek boo ñëwee bu ñu la wàccee oto bi xool oto bi lépp mu normal ñu xool pièces yi mu normal ñu xool say bagage mu normal nooy def da ngay romb waaye nga ñëw ñu droite la rek nga daw xam nga ne li nga indaale baaxul wóolu woo sa bopp ah droite rek nga départ loolu xam nga ne kon dóoru kon nag mbokki jullit yi loolu mooy ñetteel bi ñuy jàng tey ci dars yi ñeenteel mooy la tanfau tawba inda muayanati lmawt aw il azab gis nga loolu chaque jour ñu wax ko tuub du jëriñ su deenee karaas tuub dootul jëriñ waaw ñu indi la hôpital wala sa kër nga nekk docteur yi ñëw takk seeni yooyu ñuy takk nu mu tudd ñuy dugal ci nopp yi di ko teg ci sa dënn bi ah waaw ñu dugal ko seeni nopp jël dil teg sa dënn ñu xoolante daan ne sayee nga naan xaaral ma tuub allahumma xir lii yàlla du la ko nangul boo tuubee yàlla du la baal képp koo xam ne da ngaa jàkkaarloog dee bëgg a dellu ci yàlla yàlla du la nangul loolu dañ ko war a xam léegi moo tax boroom xam-xam yi di wax ne doomu aadama chaque jour da ngaa war a tuub waaye jadda zamanu wa anta talaab kam taqulu gadan gadan atub gadan gadan wal mawtu aqrab ñun ñëpp dañuy toog rek suba de dinaa tuub tey la lan tey la samedi garaawul léegi damay bàyyi ba lëndi rek su ko defee ma tuub rek ma wooraale lëndi bi quoi noonu la seytaane di la naxee nga woor lëndi nga am tiyaaba su ko defee lëndi bi jot mu ne la ah ndékk li ginaar la de nga naan dangay woor toogal fii rek du julli nga suba doy na doy woor gis nga seytaan ni iblis ak a bon walal nga fel lënd bi daa di jaxasewaat mar mardi ak mercredi mu ne la garaawul jeudi nga woor xam nga xam nga yow bi passé nag lëndi da nga demoon di nga woor wooroo mais nag gis nga bii nag amal istidaad nag jeudi nga woor nag mën nga ci boole sax vendredi bi gis nga ni mu lay def bis bu nekk nga naan suba mu tuub suba mu tuub suba mu tuub rek ba dee ne kerek am na kenn iblis da kaa feeñu daan ne ko yow daal dama laa ñee yow da ngaa jaamu yàlla jaamu yàlla ba yàlla yokkal la sa at instant yow am na yeneen téeméeri yoo war a am yow garaaw nga jaamu na jaamu yàlla est-ce que yëg nga ne yow da ngaa war a dundaat téeméeri at rek waa ji ne ah mu ne waaw olu loolu rek ma ñee la xam naa yow sa jaamu yàlla yëpp ba pare nga amaat yeneen téeméeri at yow koy àjjana nga jëm rek waa ji mu ne ah comme man am naa yeneen téeméer yu bees sama kanam léegi xam nga nu may def waaw vingt ans yi dama koy dóor cakaay damay waay yow damay bonde bu bu desee yeneen yi nag ma tuub nag rek mu dem uti ay jëngal nag commencé déglu musique commencé bañuy bàyyi julli commencé di def lu bon ndeke yow ñetti fan moo ko dese woon mu dee fekk léegi moom pare na pour def lu bon commencé na mu dee ci lu bon li nag li nga nu ko seytaane naxee moo tax kenn warul yàlla dana woon Moussa yaa Moussa laa taaman makri hatta tara nafsaka fil janna Moussa mu ne yàlla bayk ne bul wóolu de ba nga gis sa bopp aljanna bul wóolu ba nga dugg aljanna soo duggee ba ñaari tànk yëpp dugg ah léegi nag amal confiance xoola Aboubacar Saddiq ni mu toll yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam buñ jëloon balance ñu teg ñu jël imaanu Aboubacar ñu teg ñu jël imaanu nit ñi ñu teg Aboubacar moo leen gën a gëm Aboubacar nee na sama tànk ndeyjoor bu duggee aljanna càmmoñ bi duggagul gëmuma wóoragul wóoragul su tànk droite bi duggee gauche bi duggagul Aboubacar nee na wóoru wóoragul de il faut ñaar yëpp dugg rek ma doog a wóoru Aboubacar maa wataatil ard baada al anbiya xayrun min abi bakr kaw suuf ginnaaw yonent bi ak yonent yi ku mel ne aboubacar doxu fi ah nee na sama benn tànk bu duggee beneen bi duggagul wóolooguma mbokk yi tuub du jëriñ su fekkente ne nit jàkkaaru na ak dee wala mbugalu yàlla mu ngi wàcc nit bëgg a tuub kenn du la baal kon ñeent yi moom moo ëmb sunu darsu tey noo ngi ñaan yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu defal ñu dégg ak topp defal ñu tawfiix ci saar bi ñu jël nu ñu yàlla maye nu fekkee jeexi saar bi passé yanañ yàlla maye tamit noonu nu fekkee kaamil bu ñu jeex waaye ñu fekkee saar bi tamit mu jeex sunu borom subhaanahu wa taala ginnaaw ba mu waxee bismillahi rahmaani rahim te nu xam la muy tekki ñu waxoon ko ci saar yi passé mu ne alif laam miim saad noonu lañ koy jàngee ndax bu ci nekk madd dafa nekk ci kawam dañ koy xëcc waaye lan lay tekki mu ne haadihi ahruf ahadul xuruuf almuqattaa wa yuqra hakada nee na lii ay lettre la alphabet arabe alif laam miim soad nee na ay baat la ay araf la yu ñu dagg nee na yàlla taba nii lañ koy jàngee alif laam miim soad nii lañ koy jàngee lan lay tekki léeg-léeg nga dégg nit ñi am ñu jéem a dëgër fi di tekki lii am na teguñu ko fenn lu seeni bànneexi bakkan ak ku mu mën a doon ndax yonent bi moo doon firi alxuraan firiwul lii yonent bi lu yonent bi firiwul Aboubacar firiwu ko Ousmane firiwu ko Omar firiwu ko kan mooy sob daan da koy firi su fekkoonte ne am na lu ci nekk ci ay secret walla walla walla walla kon yonent bi dañu koy wax waaye bi mu ne alif laam miim sadd dafa ne wallahu a'lamu bi muraadihi biha yàlla moo xam la mu ca namm yàlla ko xam loolu la yonent bi waxoon est-ce que kon maandu est-ce que kon maandu ak gëm yàlla doyul nga wax la yonent bi waxoon yonent bi ba mu koy jàngal saxaaba yi ba mu ne alif laam miim sadd dafa ne wallahu a'lamu bi muraadi yàlla xam la mu ca namm yàlla moo ko xam mais nekk fi naan alif al asma laam al nangam miim nangam sadd nangam yooyu yëpp dëgg dëgg dëgg sa xalaati bopp la rek yow yaa ko wax rek waaye moom dëgg dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mu ne kitaabun téere la haazal kitaab téere bii boobu nga yor sa loxo tiim ko unzila wàcce nañ ko ilayka ci yow yow mii jullit bi balaa yonanti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam sa xel dem ci moom li ñu alak mooy tey suñ ne kitaabun unzila ilayk nga jàpp ne muhammad la yow bokkoo ci chaque jour ma wax ko li tax ñun Sénégal duñ jëriñu ci alquran da ngay dégg ñu ne yaa ayyuha allazina amanu ee yéen ñi gëm yàlla misla abubakrin wa umar yaa ayyuha allazina kafaru ee yéen yéeféer yi comme om abu jahlin ak firawna léegi nag ñun lan lañ ci am inna allazina kafaru ɓen waɓeno abu uh, uh, firauna inna allazina amanu on mbaɗono aboubakirin ene enen ko dañden hen ñun lan lañ ci am kon ah kitabun téere la boo xam ne unzila ilayka yow muhammad yow mii ci la ko ci yow la ko yàlla wàccee waaye yow jullit bii ci yow la ko yàlla wàccee fala yakun fi sadrika haraj min ndax lan yàlla wàcce ci yow muhammad téere bi pour sa dënn bi nga bañ cee am ay ñagg-ñagg nga bañ cee am xat-xat allahu akbar moo tax alquran waruñu ko jox kenn mu yëg ne dafa wéet mu yëg ne dafa dafa am naqar mu yëg ne dafa am xat-xat mu yëg ne dafa dundul dundul déedéet déedéet kitaabun anzalnaahu ilayk téere la boo xam ne dañ koo wàcce ci yow lu tax fala yakun fi sadrika harajum minhu ndax sa xol bi bu ci benn xat-xat diiq xat-xat nekk yàlla wax na ci alquran taaha ma anzalna alayka alqurana e yow muhammad alquran bi wàccewuñ ko ci yow pour nga texee di waaye sénégal ndeysaan bu ñu bëggee nit dee dañ koy jàngal alquran benn waaye nee na ma sama yaay dafa sukuraat mu sonn sonn sonn rek ma dem ci sama góor ga ma ñëw rek ne ko eh maire bi dafa war a dee ah jàngal yaasin ndax mu dee mu ne waa ji daa jàng rek meer bi dee alxuraan daa ñëw pour ñu dee alxuraan dafa ñëw pour ñu dund ñëwul pour nit dee rey ay nit indiwu ko fi li tunzira man kaana hayyan nañ ci waar kuy dund alxuraan dafa ñëw pour ñu dund waaye ñëwul pour ñu dee ñëwul fii rek pour ku feebar nga sonn ñu yóbbu la hôpital mënoo wér ñu yóbbu la feneen mënoo wér ñu mënoo wér ñu ne nañ la jàngal yaasin nga dee loolu la ñu wax de njàng nga dee mooy yaasin mbele o maaya alquran loolu doxul mu ñëw waaw ma anzalna alayka alqurana li tasqa allahu akbar wàccewuma ci yow alquran pour nga texee di yàlla dafa la wàcce ci yow alquran pour lan pour nga pour nga dund jàmm pour nga nekk ci lu baax waaw pour nga nekk en paix pour nga xam fooy teg sa tànk pour nga xam li ngay dund pour nga xam looy utsi looy utsi ci kaw suuf lan mooy sa mission loolu moo tax yàlla wàcce ci yow alquran mu ne li tunzira bihi wa zikra lil muminin li tunzira bihi pour nga waaraate ci yàlla moo la jox yow muhammad alquran pour nga waaraate ci nga fàttali ci jullit yi nga waar leen waaye wa zikra lil muminin yàlla moo la jox alquran pour nga fàttali way gëm yàlla yi ku gëm yàlla dañ koy fàttali ab yéeféer nag dañ koy waar xupp ko mooy al inzar soo bàyyiwul nangam soo deful nangam bu la yàlla jàppee du baax amma ku gëm yàlla nag dañ koy fàttali ah aw tey ndeysaan benn benn góor nee na dafa dem màkka mu nekk ak màkka bu boo aji jee dañ lay booleeg ay nit dañuy jël ñetti nit boole leen benn néeg nee na kiñ ko booleel mu xëy fajar rek soxnaam woo ko téléphone muy déglu moom waa ji mu ngi toog ci kaw lalam nee na mu déglu jëkkër ji naan ah kan ak kan la mu wax ko ay tur bi mu ak ni mu wuyoo bi mu pare waa ji ne ko lan la mu ne ko sama soxna moo ma woo mu ne ma sama ñaari doom yi tey demuñu jàkk julli jiwuñ jàkk waa ji nee na mu jaaxle jigéen nekk Sénégal woo jëkkëram téléphone ne ko sa ñaari doom yi tey demuñu jàkk waaw jigéen bi moom ban jigéen la waxul julli wuñ de ndaw si doon boole xale yi waxul xale yi julli wuñu lu mu wax dane demuñu jàkk allahu akbar allahu akbar xam nga ndaw soos jar naa bàyyi ci kër ah boo bàyyiwul ku mel noonu ci kër gi nag musiba dal na la mu ne ko jox ma ndaw si ndax waa ji dafa jommi musul gis lu mel noonu nee na ma jël ma ne ko waa yow yow ta- looy boole xale yi mu ne xale yi demuñu jàkka tey seen papa bi mu fi génnee démb aji ñoom tey bi ñu xëyee julli jiwuñ jàkka ja demuñ jàkka Hmm, ndeysaan ñooñu nag la ñuy fàttali ñu ne leen yéen da ngeen war a dem jàkk góor day dem jàkk dégg nga loolu mooy fàttali dañ leen war a fàttali ne da ngeen war a dem jàkk waaw tey jàng ngeen alxuraan waaw da ngeen da ngeen war a jàng alxuraan saa yu ngeen xëyee tey def ngeen seen azkar loolu mooy fàttali ku gëm yàlla dañ koy fàttali ku gëmul yàlla nag dañ koy xupp inzaar ko loolu la yàlla wax fii li tunzira bihi ngir nga waaraate ci waaye wa zikra nga fàttali ci kan la ñuy fàttali lil muminin way gëm yàlla yi nañ leen fàttali ëllëg liñ yàlla dencal ci ay mbégte liñ yàlla dencal ci ay xéewal liñ yàlla dencal ci taraanga moo gën poñetu àdduna yi yàlla ne ittabi'u topp leen maa la nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen gis ngeen min rabbikum mu bàyyeekoo ci seen borom wala tattabiu bu leen topp min dunihi leneen lu dul loolu awliya def ko ay kilifa hmm? lii leer na de wala dégg ngeen aye ittabiu topp leen lan li ngeen fekk fi seen maam yi di ko def lu ñu sangu alarba alarbay kare ah duñu duñu duñu duñu fóot duñu duñu duñu duñu duñu doo ci dégg duñu añ de duñu añ di nga ko ci dégg duñu ndékki tey duñu reer ah loolu kay moom bokk ci duñu sangu duñu dagg wee duñu tukki duñu fóot duñu bale duñu yooyu de lañ lay may loolu nag ndeysaan ku topp alxuraan du ko topp lu tax ittabi'u topp leen maa unzila ilaykum li yàlla wàcce ci yéen waaw loolu fu mu jóge mu ne min rabbikum ci seen boroom loolu lan la li moo tax topp alxuraan farata la moo ngi nii topp alxuraan farata la du sunna alxuraan dañ ko war a topp 100 pour cent waruñ ca bàyyi dara ndax yàlla moo joxe ndigal ne nañ ko topp ni yàlla waxee muhammad toppal téere bi noonu la ñu waxee toppal téere bi ñun tamit noonu lañ ñu ko waxee sànq bi ñuy wax yàlla ne woon yonent bi kitaabun anzalnaahu ilayka fii mu ne ittabi'u ma unzila ñun loolu la ñu ci dugal kon du yonent bi rek même ñun dañoo war a topp alxuraan waaye mbokk yi lii rek doyoon na ndigal waaye xoolal amru la wa nahyu ndigal la ak tere lan lañu digal nañ def topp alxuraan lan lañ ñu tere mu ne wala tattabi'u bu leen topp min dunihi leneen lu dul alxuraan awliya def ko ay kilifa def ko ay péete farak moom waliyu li mooy jamu wali mooy allié nga topp leneen bàyyi alxuraan allié ak moom boo xëyee loolu ngay jàng da ngay xëy Sénégal nga jaar nga jaar ci mbedd yi nga dugg ci marché yi nga gis benn waay bu concentré wu boo ko ne asalaamaaleykum sax du la fay soo xoolee jàngul alxuraan de leneen lay jàng loolu lañ ko wax ne moo gën a alxuraan benn waay dafa ñëw ci benn magasin bu fekk waa ji jaay mu ñëw rek waa ji ne ko alaaji diw ñëw nga mu ne bu ma ko waxati alaaji lan lu tax nga ma koy wax mu ne ko dama laa bëgg a ñaanal nga dem màkka rek mu ne soxlawu ma ko lu may di màkka lu may fa di bu ma ko waxati de ndeysaan allahu akbar xoolal nit ñi ni ñuy soree ak nit ñi fi ñu toll waaw ah kon màkka jarta dem quoi noonu ñu naan màkka jarta dem noonu la ñuy waxee ar alxuraan jarta jàng julli moom sonal sa bopp la rek sport la ñun dugg nañ àjjana ba pare ku duggul yaa xam da ngay perte moo tax buñ la lebee duñ la fay parce que dañ naan la yowmal xiyaam ñoom dugg nañ ba pare buñ la lebee duñ la fay du ñu xool alal bi ñuy jënd dagan na wala daganul du ñu xool riba du ñu xool dara dañuy bombarder rek di dem parce que nee nañ leen yéen dugg ngeen àjjana ba pare moo tax dund bi yàqu nit dañ koy waar ci yàlla nit dañ koy wax mu ragal yàlla balaa mu yoreel jullit moroomam yi ay àq balaa mu yoral boromam àq balaa mu yoral yonentam àq balaa mu yoral jullit moroomam yi àq ittabi'u topp leen maa la nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen fu mu bàyyee ko min rabbikum ci seen boroom ki leen moom ki leen bind wala tattabi'u bu leen topp min duunihi leneen lu dul loolu awliya ngeen def ko ay péete farak moom ru'asaa'uhum fi shirki ngeen topp leen def leen ay njiit ci bokkaale yàlla ne qalilan néew na ma tadakkaruun lu ngeen di fàttaliku lu ngeen di waar ngeen waaru wallahi alazim néew na lu ñuy waar nit ñi ñu waaru waaw léegi sax nit ñi bëgg war ñu déglu waaraate keroog ma déglu benn waaye mu ne léegi xam ngeen lu tax nit ñi mënatuñu mënatuñu jëriñu ñu ne waaw mu ne gars yi dañuy waaraate rek dañuy waaraate rek jàngaleetuñu dañuy waaraate lan mooy différence su jàngale ak waaraate démb maa ngi seetaan débat RDV am benn waaye bu ñu invité mu ne xutba jumaa kenn waru ko traduire sax ci olof hmm seetaan nga ko mu ne dafa araam xutba jumaa ci araab rek lañ ko war a wax ndeysaan du ma fàtte bi ma gënee nekk xale bu ñu demoon jumaa suñ jumaa ji imaam bi noonu allahumma ansur ki ibadallah inna allah yaamuru bil adli wal ihsan wa itai zil qur nga ne paay amin amin wa yanha anil fahsai wal munkar amin yaizukum bi laallakum tazakkarun amin ya rabbal alamin na wow ndeysaan ndeysaan ba tey mi nga am ne ah ibadallah imaam day wax de yéen jaami yàlla yi ñu ne teg inna allah naka yàlla yaamurukum mu ngi leen digal bil adl maanu gën gaa yi ne amin foofu ana ñaan bi ana ñaan loolu sax jàmm la da ngay romb daayira yi ci mbedd yi daayira yi ci mbedd yi ñuy jàng alxuraan wajaa rabbuka wajaa rabbuka wal malak safan safan safani di fecc loolu xam na est-ce que xam na lu ñuy fecc lan la la ilaha illa xam ngeen aaya boobu lu muy tekki wajaa rabbuka xam ngeen lu muy tekki yowmal xiyaam la allahu akbar wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji a yowma isin bi jahannam ci garaaw bu mu garaaw yàlla mu ne yowma isin yatazakkaru l insaan waaye wa anna lahu zikra yaqulu yaa laytani léegi nag doomu aadama di fecc loolu di fecc wajaa rabbuka gaay di tëgg tëgg tëgg wajaa rabbuka wajaa rabbuka subhanallah la ilaha illa allah la ko waral mooy xamuñu ñoom dañ koy wax rek mais xamuñu lu ñuy wax moo tax wax bi il faut ñu wax ko nit ñi te alquran bu muy waaj dafa ne quranan arabiyan alquran bi arab la li tunzira bihi ummal qura wa man hawlaha yàlla delluwaat ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi loolu moo lay wan ne kon il faut ñu traduiral ko nit ñi ñu wax leen ko ñu dégg ko ndax ñëpp nit ñi du ñooy arab waa ji bokk na ci lim doon lim doon dëgërale mu ne yonent bi moo ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim saaku xam-xam fara mu ne julli ñëpp dañoo war a jàng julli ñëpp jàng ta terewul terewul ñu dégg alxuraan même bu julli ñëpp jàngoon arab terewul ñu dégg arab arab yi am na ñu déggul arab arab ji seen bopp am na ñu déggul arab déggule lu ma wax de déggu leen ma arab yi laa ak seen bopp am na ñu déggul arab olof yi ci seen bopp am nañu déggul olof tubaab bi ñëpp a dégg tubaab am na nit ñi ñuul ñu gën a dégg tubaab bi tubaab Léopold Sédar Senghor tubaab la tubaab la nit ku ñuul la est-ce que dugg lañ ko ci académie française ah ñiy defar dictionnaire yi dugg lañ ko ci pourtant ku ñuul la kon raw nay tubaab ba gën leen dégg tubaab voilà kon mbir yi diine bi foog ñu leeralal ko nit ñi ci seen làkk waaye nag bu jaamu yàlla jotee ñu defee ko ci arab julli ñaan yeneen yu demee noonu foog ci arab lay nekk jàng alxuraan bi alxuraan bi kenn mënu koo jàng ci olof ci arab rek lañ ko mën a jàngee léegi nag bu desee pour ñu leeralal ko nit ñi mën nañ leen koo leeralal ci seen làkk ba ñu comprendre ko ñu xam mbir mi lan moo tax mu jóg léegi nag ku taxaw ne loolu de loolu de moom dafa araam léegi yow dañ lay laaj loolu loolu nga ne dafa araam fan lañ ko bind li gën a garaaw ci borom xam-xam yi li ñuy def tey comme zaaru waa jooju mooy nga ni lii daa araam ñu ne ku ko wax nga ne Oustaz Seydou lii moo ko wax Oustaz Seydou lii mooy kan ba muy araamal ak dagana moom moom mbiru boppam la Oustaz Seydou luy dalilam ba mu ne lii araam na luy dalilam moom lii da dafa araam ku ko wax imaam Malik benn ba benn paa mus na ma ne yow yow lu garaaw ngay def imaam Malik nii la doon jullee yow nga naa da ngay jullee nii ma ne ko imaam Malik kenn yónniwu ko mu ne ya ya yow imaam Malik ma ne ko imaam Malik kenn yónniwu ko da ngaa da ngaa da ngaa bëgg ma dellu ci waat mu mu koy garaawal ma ne ko eh taxawal mu taxaw ma ne ko ma ne mu ne ah ma ne ko imaam Malik kenn yónniwu ko laa wax mu ne yow dootuma wax ak yow dootuma wax ak yow ah pourtant daf ko weddi rek mais dëgg laa ko wax de imaam Malik duñ ko yónni yónni wuñ ko yónni wuñ ko c'est loolu mooy sunu problème yow diw nee na lii rek kenn du ko def rek yow nga ne kenn du ko def diw moomu dina ne kenn du ko def fu mu ko teg loolu lañ war a seet da ngaa war a wax yàlla de nee na kenn du ko def ñu ne anamu nga ne aaya baa ngi nii yonente bi moo ngi nii jeex na waaye ñëw rek sa waay indil nit ñi ay problème waaw diw nee na xutba jumaa kenn waru ko firi diw moom fan la ko teg ba pare xaayida yi ñu indil xaayida yi nga xam ne dafa ne wengaleer nañ aslul asiyaa i lu borom xam-xam yi wax al ibaha cosaanu mbir yi mooy dafa dagan lépp dafa dagan lekk leen naan leen def leen lu leen neex ah ñuy lekk ba ci yàgg rek yàlla mun ñëw mu ne ah taxaw leen ñu ne lan la mu ne maa ngi waxoon ngeen lekk ñu ne waaw mu ne am na loo xam ne waratu koo leen waratu leen koo lekk ñu ne lan mu ne mbaam sëf mbaam xuux wa ma uhilla bihi li gayrillah ah jàng ngeen sax fin kii bi aaya bi bii nii saar bi ñu jeexal nii jur yooyu yàlla doon tere ku ko lekk lu dul gis nga dañuy lekk di naan ba texte ñëw ne bàyyi leen sàngara daa daga noonu après texte moo ñëw mu ne araam na dañ doon lekk ñaari loxo yonent bi xëy ne laa taakulu bi simaal wala tashrabu bi simaal fa inna sheytaan yaakul wa yasrab bi simaal gis nga léegi kenn dootu lekk càmmoñ kenn dootu ko naane parce que yonent bi xamal nañ ne seytaan moom lay utiliser jeex na maanaam il faut balaa nga ne dara araam na foog teg si ñëw mu ne lii kat bàyyi leen ko waaye da ngay gis Sénégal benn texte du ñëw rek gars yi commencé sa waay indi ay nit nit ñi ay problème te balaa ngay wax di mbir mi araam na mbir mi dafa daganoon ba pare comme amul lu ko araamal nag kon dafa dagan ba tey ñaata saxaaba la yonent bi jël nekk dem leen ngeen jàngal ma yeneen làkk ñaata saxaaba la yonent bi yónni ñu jàngale leen la yeneen làkk lan moo tax yonent bi def loolu pour communication bi mën a jàll pour mën a communiquer ak ñeneen beneen bi mooy ci leeralante leeral gis nga tey boo nekkee tukulóor nga dem fuuta nga bëgg leen waar déggoo tukulóor duñ la déglu o jol fo min ke daal la ñuy jóg jël seen daal dem seen o jol fo ara doona jangina min diine ah lu la déglu xam ngeen li ma wax yéen tukulóor yi xam ngeen ko bu baax saraxule yi noonu lañ mel bambara yi noonu lañ mel su kenn jógee fee ñëw naan leen eh yàlla nee na ñu naan ko waaw yow yàlla nee na kenn du la déglu mais boo ñëwee ngay wax ci làkk bi nga xam ne ñoom moom lañ dégg dañ naan teg di la déglu loolu la yàlla def ci àdduna bi loolu dafay neex communication bi day jàll moo tax yàlla ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi mu ngoog kon firi ay xutba ci ci olof dara nekku ci wax ko ci pulaar dara nekku ci wax ko ci joolaa dara nekku ci l'essentiel que na nga ubbee aaya wala hadis wala wala wala ci biir xutba bi na nekk beneen bi beneen bu gën a doy waar mooy lan mooy xutba luy xutba ci en français discours discours tout court lan la mooy da ngay wax ak nit ñi communiquer ak ñoom pour li war a am xutba ci xutba ci islam juróomi juróomi juróomi xutba ñoo am juróomi xutba juróomi xutba xutba jumaa ci la bokk xutba juróom la ci arab ci islam léegi li ñu bëgg rek mooy message bi jàll li ñuy jàngale li ñuy wax mu dugg ci nit ñi ñu xam ko loolu kese la waaye tey jii nga bëgg a ñëw ne loolu kenn du ko fi defee gars yi dégguñu arab ñoom ñëpp ay olof lañ wala ay tukulóor lañ hmm? boo leen ne toog leen ñu jóg taxaw nga leen taxaw leen ñu toog ak ñoom déggowu leen am na benn paa ci benn jàkk xoolal moom luy mission bu imam bi di ñëw lan la war a wax ci arab jaa imam danaan yaa imam lu yaa imam ci arab mooy lan e yow imam ak jaa imam xam nga du benn yaa imam moom dafa bëgg wax jaa imam léegi nit ñi ay olof lañ du ne imam ñëw na munu amu am jàmm nit ñi am jàmm waaye foog mu jëm ko arabal yaa imam mooy eh yow imam imam dafa war a nox naam nga la béy ko parce que waxul jaa imam jaa imam mooy imam ñëw na da ngay dem loolu ba ji buñ naan imam ak lan ñi nekk ci ginnaaw imam lu mu tudd ci Sénégal naim naim mooy lan ñii nelaw naim yi ñëw nañ naim yi mooy ñii nelaw lu ñu waroon wax naib mooy ñi wuutu imam foofu sax yemu fa de même da ngay dégg ñu naan les ulama les ulama zulama ci arab mooy la mooy tooñkat yi jam u zalim dañu la dañu waroon wax al ulama ulama yi wax nañ yooyu dañ naan les ulama ils sont dits les ulama mooy tooñkat yi musiba la loolu yëpp lu ko waral mooy nit ñi ñàkk a jàng arab ba pare au lieu mbir mi ñu wax ko ñu wax leen ko ci niñ leen nuñ ko déggee déedéet gis nga mooy fii am na baat yoo xam ne sax dañ leen koy wax baat yi dañ koy réyat fekk baat dara mooy baat bi ñu waxoon sànq waliyu waliyu ii te waliyu la de ah waliyu démb am na ku ma ko laaj ci jumaa bi ñu sëlmalee mais oustaz mu ne mu ne est ce que waliyu am na ba léegi wala amul xulli ma bëri ko aw waliyu shirif sharif muqaddam cheikh juróom yi kenn du ko firi Sénégal ah cheikh ah ak wasila kenn du ko firi parce que buñ ko firee rek day rës te dañ ko bëgg a ngandal cheikh al imam al kii as cheikh fekk cheikh du laa dul góor gu màgget cheikh mooy màgget wala ah yenn saa yi ñu ne la cheikh bi ngay ngand ngal ko dañ ne la du dara lu dul dañ ne la màgget loolu mooy cheikh bi cheikh mooy ku màgget léegi nag comme borom xam-xam yi ci ëpp ay mag lañ cheikh est-ce que loolu jar na rëy waliyu mooy lan yàlla waliyu la allahu waliyu lazina amanu seytaane waliyu la walazina kafaru awliyaa mu taaxut yow waliyu nga man waliyu la waliyu mooy ku allié dara sa kër yow yaay waliyu bi wala atelier bi chef de atelier bi mooy waliyu bi jàkka ji imam bi mooy waliyu bi quartier bi chef de quartier bi mooy waliyu bi loolu mooy waliyu mooy koo xam ne yow yaay responsable dara allahu waliyu lezina amanu ñi gëm yàlla yàlla mooy seen waliyu yéeféer yi ñi gëmul yàlla seytaane mooy seen waliyu loolu jeex na muqaddam léegi li Yunus di wax ceerno samba ko muqaddamu o waɗama muqaddam diw def nañ ko muqaddam tey muqaddamal nañ ko lan mooy muqaddam mooy kuñ teg ci kanam xanaa fu saañ tegee nit ci kanam am na kuñ teg ci ginnaaw wala ki ñu teg ci kanam lu tax ñu teg ko fi lan la ëppal li ñu bañ teg ko fi o waɗama muqaddamu Sénégal dañuy seexal sax jigéen ñi te man ñi ñuy seexal ñëpp gisuma gisuma ci ku baax ay waykat ay mbër ah loolu dalaa fi gisoon ñu seexal ay mbër ak ay waykat ak ay ay ak ak ak du ma gis sax ku jàng koo xam ne dëgg-dëgg kii ndeysaan dina mën a sax mu ta mokkal fatiha da ngay gis seex boo xam ne mokkalul fatiha ah seex bu mokkalul fatiha am nga ko de ah xam nga ko gis nga gis sax suñu doom bi sax nee na xam na ko ndeysaan cheikh bu mokkalul fatiha léegi kooku moom taalibe yi mu jiitu lu mu fu mu leen jëme wala cheikh boo xam ne moom nee na man alxuraan xaw ma ci dara loolu du mel ne neuf laa xam kon kay xamu ko sax kon sax xamu ko ndax bu ko xamoon day day wax tur bi waaye loolu mel ne neuf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gars yi buñ toppee loolu duñ dem borom bi nee na qalilan ma tazakkarun néew na lu ngeen di waaru lu ngeen di waaru néew na qalilan ma tazakkarun nit ñi néew na lu ñuy fàttaliku yàlla waaru sunu borom nee na wa kam min qaryatin ahlaknaaha fa jaaha ba'suna bayatan aw hum qailuun wa kam loola tukuloon naan héewi wa kam bëri na kasiran min al qura bëri na ci ay dëkk ahlak naaha yoo xam ne man yàlla maa ko alak allah kenn alagu ko man mii ahlak naaha man yàlla maa ko alak fa jaaha dikkee na dëkk ba baasuna sama mbugal azabana dëkk boo xam ne dañoo tëdd di nelaw guddi ba mooy barki démb li dal waa marché bi marché bi nekk Pikine bi ban heure la tàkk 4 heures du matin ana seeni borom boobu noo ngi nelaw ñii ñoo ngi gént ñii ñoo ngi see ak seen soxna mbugalum yàlla daal di ñëw gis nga mbugalum yàlla bëri na lu muy ñëw day fekk ñee ngi nelaw ñee ngi sees ñee ngi tefesu géej xoolal jàng gis ngeen gis ngeen tefesu géej gi ni mu defoon dëkk ya gaa yi nekk ci géej gi ak seeni xale yu jigéen yi di cëpp cëpp ñii ci hôtel yi nekk mbugalum yàlla moo ngi ñëw la mu ne wakka ayin bëri na min qaryatin ci dëkk wa kam min qaryatin bëri na ci ab dëkk ahlak naaha boo xam ne alak naaha fa jaaha dikke na dëkk ba baasunaa sunu mbugal bayaatan suba teel la mbugal mi yegsi allahu akbar fekk ñee ngi sangu ñee ñoo ngi jëndi mburu ñee ñoo ngi tàngal café ñee ñoo ngi raxas kaas yi ñee ñoo ngi lal taabal yi ñee yeewooguñu ñoom ndeysaan ñee yeewu nañ bay sangu ñee ngi waddoo ay sarbet ñee ngay boros suba teel ba yaatan ndekki mbugal mi yegsi na kenn du ndékki allahu akbar ñeneen ñi mu ne aw hum qaailu ñenn ñi ñoom ndeysaan dañ doon sees wàcc nañ liggéey une heure ñi ngi tëdd nag di xaar tuuti ñu yee leen nijaay añ bi yegsi na ndeke mbugal mi yegsi na doo añi allahu akbar mbugal yàlla day bett ah ñaata ci nit ñoo la tàggu ne la maa ngi dem toilette nga defe ne dañuy ñëwaat fekk duñ ñëwaat dañuy dañuy dee allahu akbar ñenn ñi dañuy ñëw ne la bon à tout à l'heure ñenn ñi ne non booy rak tak dem dikk amul benn problème dem dikk ndeke da ngay dem doo dikk ndeysaan ak a bëri moo tax booy tëdd benn sëriñ dafa gis mu dégg ku dee heure bii rek mu dégg ku dee gars yi di yuux mu ne lan la ñu ne diw moo dee mu ne loolu jarul jooy ñu ne lan moo jara jooy mu ne ku tëdd te julli woo gee loolu moo jara jooy est ce que wóor na ndax di nga yeew ah ndeysaan ku tëdd suba dégg asalaatu xayran minan nawm mu tëdd rek léegi boo dee continuer noonu nelaw malaaka bi ñëw coppati la foofu looy wax yàlla nga yegg si rek mu ne la mbela a julli suba ka julli nga suba looy wax nga nekk fa naan waa seega man kay déggoon naa salaatu bi sax waaye dama bëggee jóg rek loolu wóoru de julli nga suba waaw foo ko jullee ca jàkka ja allahu akbar julli nga tisbaar waaw foo ko jullee ca jàkka ja xoolal cheikh abdul hamid kisk jour vendredi dafa sangu jàpp sol ay yéreem jël sijaada moom moo mooy jiite jumaa ji de waa jumaa ji ñu ngi koy xaar mu lal sijaada def ñaari ràkka pour tàggu këram dem jumaa ja mu sujjóot mu dee dañoo wax waa jumaa ji imaam dee na te waa jumaa jaa ngi toogoon di ko xaar fu mu sujjóotoon di def ñaar ràkk foofu la faatu ndeysaan tey maa ngi koy déglu ci benn xutba bu mu doon def allahu akbar xutba bu doy waar tey maa ngi ko doon déglu xutba bu doy waar bu doy waar tey laa ko doon déglu xutba boobu na leen yàlla taxaw sunu borom nee na bëri na dëkk boo xam ne man yàlla maa leen mbugal sama mbugal moo leen dikkal suba teel ñenn ñi moom ndeysaan waxtu waxtu yoo waxtu diggu njool lool la fekk ñoo ngi sees ndeysaan wahum qaa'iluun fekk ñoo ngi sees naa'imuuna bil qayluula qayluula mooy nelaw entre midi ak deux heures loolu nag lu ñu bëgg la ñetti nelaw benn bi moo baax ñaari baaxuñ yeewu fajar julli fajar tëddaat loolu dañ koo tere julli tàkkusaan tëdd dañ koo tere ñaari yooyu ñaari nelaw yooyu dañ koo tere julli suba tëddaat dañ koo tere julli tàkkusaan tëdd dañ koo tere bal sax day indi feebar tàkkusaan diggante tàkkusaan ak timis boo ko nelawee rek boo yeewoo am problème seet leen ko nag testé leen ko boo yeewoo rek gis sa bopp xam ne normaloo balaa ngay nekkaat dina jël ay waxtu li ñu bëgg mooy boo fi yeewoo fajar gi bul nelaw ba midi jot nga nelaw diggante midi ak tisbaar foofu moom da ngay amaat force da ngay noppalu da ngay nekk waaye ñun dañuy rajaxe rek suñu yoon nekk ci dañuy dëbb rek waaw suñu yoon moo tax dara suñu dund bi dara jagu ci suñu borom nee na fa ma kaana daawahum is jaahum baasuna illa an qaalu inna kunna zalimin allahu akbar fa ma kaana nekkul daawahum seen woote seen ñaan ñooñu nga xam ne dañoo bañoon jaamu yàlla ba mbugal mi yegsi keroog ba mbugal mi yegsee seeni wax nekkul lu dul is jaahum baasuna keroog ba leen sama mbugal dikkalee illaa lu dul an qaalu dañu ne inna kunna zalimina ñun de ñoo tooñ loolu rek lañ fi nekkee ñoo tooñ gis nga de ñun la yàlla santoon ñu lànk tey mbugal mi yegsi na kon nag balaa boobu mbokk yi ñuy toog ba mbugalum yàlla di dikk suñu kaw ba mbugalum yàlla wàcc nga xam ne tey kenn dootu ci mun dara wala barki démb lii lakk fii ku ci mën dara tey démb heure bi maa ngi ko romb mu ngi tàkk démb heure bii maa ngi ko romb mu ngi tàkk kenn mënu ko fay heure bii démb laa wax kon ñaata waxtu la tàkk waaye dafa am ay événement yu xew Sénégal nit ñi war nañ ci jàngat bu baax a baax a baax mais mal asaf mbir yi day ñëw rek li yàlla da wax aaye day ñëw di romb kenn du xalaat Sénégal ak ni mu toll tey ñu naan pays xaw ma émergence wala am lu démb barki démb ci guddi ba léegi am luy tàkk tàmbali 4 heures du matin ba 22 heures ci guddi kenn mënu ko fay te lu tuuti la kon bu dëkk bi yëpp tàkkoon fu ñu jëm bi ma rombee muy tàkk mel ne jahannama ma ne waaw lii lu tax fay ñu ko ñu ne ma gars yi amuñu ndox sapeur yi nee nañ amuñu ndox te xoolal lu gën a doy waar ndeysaan ñu ngi dend ak dexu meew mënoon nañu sax am ay tiwo yoo xam ne ay machine lañ ko branché jarul sax ñuy yóbbu oto yi même pas 30 mètres ñu ngi ak meew meew lu fa nekk ci ndox lan la mais isa nazalal bala amal basar yàlla bu naree bu naree bu naree rey bu naree rey maladie yàlla bu naree rey maladie docteur yi lay rey nga ñëw ci hôpital bi ana docteur yi ñu ne la docteur yëpp a dee nañ kon maladie su docteur yi dee maladie jantak isa nazalal bala amal basar yàlla buy wàcc mbugal day gumbaloo bët yi kenn du gis waa ji takk téere ne duma dee téere bi moo koy teree dee gis nga bis buy dee day dem ba ci diggu yoon bi day jëm fuuta jóge Dakar jëm fuuta dem ba Ndar ne nii eh chauffeur bi ne ko la mu ne sama téere balaa fàtte inna lillahi wa inna ilayhi ñu ne ko la mu ne téere bi laa fàtte téere bi léegi nag fuuta la jëm ñëw na ba ndar mooy fa mu jëm moo gën a jege fii mu nar a dellusiwaat jël téere bi mu ne ah garaawul nañ dem rek yàlla baax na ah kon kay yàlla baax na bu demee ba war a sóogi yàlla yëkkati oto bi ci kaw dur ko ci suuf jëntak mbirum yàlla kenn mënu koo kii gars yi nee nañ suratu tawba fin bi soo ko mokkalee doo dee moom la ñuy wax laqad jaakum xoolal caaxaan yooyu rek ñaata xaafisu quran ñoo dee mais nit ñi duñu xalaat loolu laa doon wax démb xutba bi ñu ne la boo jàngee laqad jaakum doo dee ñaata xaafisu quran ñoo dee démb benn mbokk mu ne ma téléphone salaamaaleykum ma ne waaleykum salaam ma ne saas dama am laaj ma ne ko lan la mu ne yenn saa yi sama porta portable bi dafa am alxuraan dañ cee wàcce kaamil bi yëpp mu ne waaw ma ne ko waaw mu ne yenn saa yi ma dugg duus yóbbaale portable bi ndax al loolu noonu bàkkaar mi ngi ci wala bàkkaar nekk ci kuy tontu déedéet yow waxoon naa la ko waaw Hamid Hamid dafa la yow buñ koy wax fi benn bi si yaa ngi fi woon ah kuy tontu bismillah non portable bi laa wax dafa am alxuraan mu ngi fees del léegi nag mu ngi sa poos dugg nga duus loolu jaadu na wala jaaduwul ah jaadu na xaafisi xuraan yi dugg duus nag ma ne ko mokkal nga alxuraan mu ne waaw ma ne ko ah xanaa doo dugg duus mu ne ah ah ah ma ne ko mu ngoog lañ lañ la tere mooy jëmm kaamil bi alxuraan bi jëmm ji nii lañ la tere nga dugal ko ci biir duus mais mu nekk ci portable wala mu nekk ci clé wala mu nekk ci mu ngi mel na yow rek waaw benn waay mu ne ma laaj bu garaaw est ce que nit dina julleek sobe ma ne ko déedéet mu ne kon dem àll buy nekk sama biir yi nag ma ne ko génne ko ah waaw ma kay pare ci ma ne ko génne ko ah oustaz loo koy kenn mënu ko génne ma ne ko kon nag ba ko foofu la nga mën a génne te jot ko nga raxas ko te julli ji dafa am ñoo xam ne dañoo feebar dan leen yàlla moon dëgg mu wërsëgal ñu topp ñu loolu mooy suñu darsa tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu